ci leen jot li yóbbu sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha moom nu yónni si woon ci yéen ndax sëñ Babacar Sy Mansour mbokk ma nekk Tiwaawoon dafay yónni si doomam ju tudd sëñ Abibu ak doomam ju tudd sëñ Moustapha ak beneen jalbaatam ñoom la yónni si woon tey wax ko ne ko dégg naa ne xew Touba te na nga xam ne foofu ngeen nekk ak dëkk fii ma nekk benn barab la bu ma ko mënoon dafay ànd sama njaboot gépp ñëw buñ ne tàng ci ay loxo sax di ko di tóor di tàng ci loxo di tóor ba ndox mi jeex te nag moo ne sëñ bi itam lu nit di def ci lu baax jëm ci ceew da lay jéem a fay bor waaye kenn mënu laa seen ndax xam ne fu lislaam man soxla taxaw nga ba ci bitim réew ba ci tërgee fu nekk na nga fay dégg say kàddu ak si jëf kon ak cëre biir réew mi foofu dara xewe ñu gis say ndaw ak sa kon boo xewlee dara ñëpp nga war a gis mu yónni si woon nag enveloppe bii ne mun Mountakha dama koy barkeeloo new na lool waaye nañu ma ko defal ci liggéey bi mu toll juróom million bi nga ko waxee siñ mun Mountakha joxoon ma ko ne man naa ko andi teg ko ci seen loxo ñu defal ko ci liggéey bi loolu laa doon andi kon nag mi ngi nii loolu ma sëñ bi yónni si woon loolu laa doon jottali yàlla leen yàlla defal ndam ci barke sëriñ bi defal na ko nu itam ba Cheikh Mountakha li mu yéene liggéey sëñ Touba mu liggéey ko te mu dimbali noonu ban mbokk ci ñi koy jàppale ba liggéey boobu jàppale jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan